nous avons parlé tout de suite euh, de code euh, du président sortant. Je veux simplement dire que 44 morts après, 650 détenus après, trois ans après, énormément de miliciens après, les FDS qui tirent sur le peuple, après tout ceci, il vient nous dire qu'il n'a plus envie d'être candidat. Mais sachez que c'est absolument faux. Il n'a pas décidé, lui, volontairement, de ne pas être candidat. C'est le peuple. Nous n'avons jamais cessé de le rappeler. La souveraineté appartient au peuple et le peuple a décidé. Il a compris, il a compris que le peuple allait marcher sur lui s'il décidait d'être candidat. Et il l'a si bien compris qu'aujourd'hui, dans sa manipulation, il est en train de dire, vous là qui étiez prêts à manifester, à dire vous serez dans la rue. Vous aviez deux, deux seules choses qui pouvaient vous mobiliser. La première chose était ma candidature, ma troisième candidature. Et la seconde chose, c'était l'interdiction de candidature à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, vous tous qui avez comme dénominateur commun l'opposition à ma candidature, restez chez vous. J'ai décidé aujourd'hui, en me prononçant, en disant que je ne serai pas candidat, je vais marcher sur Ousmane Sonko, Je marcherai sur Pastef, je marcherai sur ses militants, je marcherai sur sa candidature, je le garderai en prison, je l'interdirai de candidater. Laissez-moi faire, laissez-moi m'occuper de Ousmane Sonko. Voilà le message qu'ils nous ont lancé. Voilà comment il faudrait décoder le discours de Macky Sall hier. Et comment il, il, il est parvenu, on le verra parce qu'il est en train de lancer des menaces derrière, comme d'ailleurs il est coutumier des faits. Donc ce qu'il a dit hier, mais est d'une extraordinaire banalité, parce que je ne suis pas candidat il savait très bien et pertinemment que la constitution le lui interdisait et je dis pour ceux qui ont décidé de lui faire confiance mais gardez-vous de totalement lui faire confiance parce que comme il est il a été dit tout à l'heure par Ngagne Demba Touré il garde sous sa sous, sous son coude trois cartes trois coups qu'il peut nous faire au dernier moment et j'avertis j'avertis les prochains candidats de l'APR évitez de manger chez lui Évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner et de dire comme, nous n'avons plus de candidats, je et de le faire à la, à la Ouattara. Prenez garde, je parle de Amadouba, de Alingou et de tous ceux qui ont été cités, faites bien attention. Si vous n'arrivez pas à gainer votre bouche d'invulnérabilité, ne mangez pas chez lui. Mais je dis une chose, il n'est pas candidat et Dakar dort. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'est pas candidat et Dakar est en train de dormir. Ça veut dire que ça, ça, le fait qu'il ne soit pas candidat n'intéresse aucun de ses souteneurs. Mais qu'ils disent qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat, Dakar ne dormira plus. Qu'ils disent que Ousmane Sonko ne sera pas candidat, le Sénégal ne dormira plus. Et il faudra qu'ils le comprennent. Donc tout ceci n'est en rien une déclinaison du dialogue politique. En rien, il faut qu'on le comprenne. Tout ce qu'il vient de dire n'a rien à voir avec le dialogue politique, il a compris le message qui lui a été lancé. Et comme nous l'avons dit, sa déclaration tarif a causé beaucoup de morts, mais l'affaire CPI, on ne va pas lâcher l'affaire. Top donne. Ils nous ont dit qu'il y avait des forces occultes dans ce pays-ci. La seule force occulte ici, c'est cet homme qui a voulu utiliser des, des forces de défense et de sécurité, accompagné de milices qui a, tué sur qui a tiré sur son peuple. Voilà la seule force occulte. Et qui aujourd'hui, parce qu'elle est tellement occulte, elle a envoyé cette force occulte, une ministre des Affaires étrangères, se rendre dans tous les pays du monde, se rendre à l'Union européenne pour nous servir un mensonge éhonté que les gens n'ont pas fait, et secondes pour, le, pour, la, pour la démentir. Force occulte. Il a dit les forces de défense et de sécurité ont tiré. Mais voilà, vous là qui êtes force de défense et de sécurité. On vous a donné la possibilité de tirer, vous avez tiré avec des balles réelles sur le peuple. Et aujourd'hui, on vous en pâture, on vous en charogne. C'est un avertissement qui vous est lancé. C'est un avertissement qui vous Aujourd'hui, en tout cas, moi, Biram Souley Diop, parlant sur cette table, auguste table, invité de la conférence des leaders, je dis la candidature du président Ousmane Soko est une demande politique est une demande du peuple. Elle ne dépendra pas, elle ne dépendra politique ou un complot judiciaire. Ousmane Sonko sera candidat. campagne avec lui. Il présentera programme. Et si notre souhait, le bon Dieu l'accepte, il sera, le, il sera nous, le, le, président en 2024. Nous l'avons entendu faire ces menaces. Mais nous rappelons simplement que nous n'avons de ces menaces. Nous n'avons que faire de ces menaces. Il n'a que trois choses. La prison, la mort, la carrière. Il ne peut détruire que cela. Et ceux qui sont morts ne sont pas plus dignes que nous. Ceux qui sont en prison ne sont pas d'une fierté moindre que la nôtre. Et nos carrières, nous n'avons qu'à en faire. Nous sommes des citoyens simples qui voulons lutter pour la démocratie. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que les exigences face à ce qu'il est en train de nous proposer c'est que nous, on ne dialoguera pas avec un pistolet dans la bouche. Parce qu'avec un pistolet dans la bouche, on ne prononce pas des consonnes, on ne prononce pas des syllabes, on ne peut prononcer que des voyelles. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on Avec un pistolet dans la bouche, on ne peut pas dire non. Donc on ne négociera pas avec un pistolet dans la bouche et ce qu'on lui dit, une condition, parce que nous, nous ne sommes pas hermétiquement fermés au dialogue. Nous l'avons toujours dit et je rappelle encore que Ousmane Sonko avait bien dit en 2021, sorti de la gendarmerie, qu'il ne pouvait pas accepter. Aucun leader de la coalition Yehui Askanui ne pouvait accepter qu'on interdise à Macky de terminer son mandat tranquillement. Accompagnons-le pour qu'il termine tranquillement son mandat. S'il se décide à respecter ceci, le dédommagement des victimes, une enquête indépendante contre les crimes qui ont été commis, la libération de l'intégralité des détenus politiques, l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice. Nous avons vu avant-hier le ministre de la Justice commenter une décision de justice alors qu'elle n'est pas terminée. Et aujourd'hui, j'appelle l'Union des magistrats du Sénégal. Elle s'est offusquée par les jours passés, par les mois passés, que des hommes politiques aient commenté des décisions de justice. Il faudrait qu'elle se lève pour nous dire est-ce qu'elle est, d'accord que les barrières qui sont totalement et intégralement qu'ils puissent marcher tranquillement, vaquer à ses occupations, euh, ses occupations et nous-mêmes aller lui rendre visite tranquillement sans voir des hommes en tenue où c'est écrit police nationale. Des élections transparentes, inclusives et apaisées. C'est notre souhait le plus absolu. Si c'est son souhait, on s'entendra rapidement parce qu'il va arrêter ce qu'il est en train de faire. Si ce n'est pas son souhait, si son souhait reste d'éliminer Ousmane Sonko, il nous aura toujours en face de lui qu'il se prépare à nous mettre tous en prison. Nous rappelons aux Sénégalais, donc tout ceci que il nous a informé qu'il va introduire des modifications au niveau du code électoral et de la Constitution. En tout cas, nous, députés, nous attendons fermement de savoir qu'est-ce qu'il nous amène. On ne se prononcera pas sur le sujet, on attendra d'avoir les informations sur le contenu. Mais sachez-le, Constitution du rido may bu heure bu la neex nga koy mbëkk changer ci lu la neex soppi ci lu la neex la constitution ce n'est pas le rideau d'un bar qu'on heurte à tout moment qu'on soulève à tout moment et qu'on rabaisse à tout moment voilà la conclusion merci beaucoup